ci dëkk bi ak li ñu nekkee ñoom wit leen mais dooro moo gën a oyof bopp ndax dossier moo gën a woyof biñ ko jàppee jooro dooro def njuumte bu dee te xamu ko mooy den ko njëkk a puusal dossier un milliard deux cent bi nga xam ne moo gën a dëgër moom leen ko njëkk a puusal mu daw joxe caution cinq cent million te li door amee ci dossier buñ ca yeggee mat na six milliards dooro Gueye waxuma moo ko def de wala defu ko de dama ne liñ ko téyel ci dossier buñ ko tegee ci taabul bi mat na six milliards léegi nag moom erreur bu mu def mooy den ko ne ciix rek mu génnee cinq cent millions caution ba pare diggante ne Zuliya dina fay xam nga booyee ni ñoom ñoom Diomaye ak Sonko ñu bàyyi ko mu ñibbi léegi nag teg ko gët mën a tudd rëcc dootul génn parce que erreur bu mu def mooy duggaat bi cinq cent millions yooyu mu fay foo nekk ci at na mën ngaa dund cinq cent millions téeméeri at at bu ne mhm. at bu ne cinq cent millions ñu bàyyi xel bu baax moom erreur bu mu def maanaam joxe cinq cent millions dafay tax ñu bàyyi ko xel bàyyi ko xel ne kii mën na fay te fii un mois deux mois bu ci joxee sept cent millions dañu naan oh kon kii am na ku mu denc lu denc. donc lim liñ ko tuumaal kon denc na ko su boobaa moom indil na boppam problème caution cinq cent millions bi indil na boppam problème waru ko woon a nangu léegi gis nga buñ jàppee Doro <coughs> ñu génnee turam génnee téléphone xool ay dossier ak prête-nom ñeenti nit dinañ dugg ñeenti nit dinañ dugg ci kaaw dooro te dooro dossier yu bari da ciy tudd Macky Sall walla Marème dossier yu bari da ciy tudd Macky sàll walla Marème léegi nag bu ci tuddee Macky wala Marème dafay may nguur gi bu ñu bëggee fayu ci Macky ñu am accès jëliku dossier dooro bi am na musicien am na jigéen am na ñaari kilifa buñ poussé rek di ngeen gis ay prête-noms yu ngeen yaakaarutoon di ngeen gis ay prête yoo xam ne yaakaaru leen ko. mag laa wax texte ma maa ngi liggéey wax naa la loolu. so da gis ne. dossier Doro bi dina leeral lu bari dina leeral lu baree baree baree baree baree baree baree bare léegi nag su loolu paasee Macky Sall dafay am benn dossier xaalis buñ ko tudd dooro da koy tudd duñ laal Macky ñu indiwaat keneen après Doro kooku dina tudd Macky ñu laal teg su baree nag nguur gi du ñu dem jàppi Macky de ndax intervention bi international ak national day bari duñ ko laal mais ci la ñuy forcer Macky Sall ba du dugal loxoom ci politique du jàppale kenn du ci wax du ci du ci def dara day màndu toog neli parce que dafay fekk ñu teg ci loxoom loo xam ne xam ne na jàpp neen ñu def problème ñu tudd ko moom léegi tudd boobu ñu tudd ko moom ci boppam fala nguur gi di jaare na ko noppil Macky génn ci politique def retraite am bu baax xale yi doxal ndax fu mu nekk nii amadu amadu Ba ci boppam moom suma nit ki Amadou Ba bi ma bëgg man gëm ko dafa am ñaari problème problème bi mooy problème bi mooy ndax doo mën a wax waaye yaa ngi may jaxase yaa ngi taxaw tiim ma mhm. tey ehm, Amadou Ba suma nit ki moo war a nekk opposant potentiel bu nguur gi mais dafa am benn problème problème bi mooy moom ak Macky Sall am na réeroo bu am seen diggante leerul ma man leerul kii leerul kaa problème boobu amatu Ba munta njëkk a génn Macky Sall la wax ko su génnee wax ko Macky su riposte du ko tontu dafay jaar ci nguur gi toog am lu mu leen leer tey nga gis ne Amadou Ba ci boppam munta wax digganteem ak Macky sàll lan la munu ko Macky Sall du teel a wax mais problème mu fa mais lan mooy problème bi xaw léegi kon nguur gi ci problème mu homme d'affaires yi la ñuy régler dossier opposition yi Amadou Ba kenn du ko laal kenn du ko wax mais day noppi. dafay noppi su noppee ñu bàyyi ko ci jàmm su waxee yàlla mën na ko musal parce que jubam xam-xamam mais am na dossier yu bari yoo xam ne moom mu mucc ci dafay jafe léegi nag problème mu dooro bi mooy ouverture nguur gi pour mu pénétrer dëgg dëgg dëgg dëgg ci yàq ak lekk xaalis yu nekkoon ci réew mi mais du doore rek leen soxla yéen a may dégg wala déggu leen ma léegi xam nga Doro ba tey mu ngi digg mais biñ ko fa yóbbu tudd na fa Mansour Ndaw bu Mandour Motos beneen tur Mansour Ndaw Mansour Motos bàyyi leen xel tur bi te actuellement nii nii awa bi ak ñaareel bi ñu nga gendarmerie mais lan moo xew ndax den xeex walla xeexuñu man xaw ma ci dara kan mooy awa bi ak kan mooy ñaareel bi xaw ma ci dara mais yéen xam ngeen ci dara mën ngeen ma waxal am na daal ku ci bañ a wàcc. donc problème mu problème mu Sénégal xamu fu ñu jëm ak kaa hmm. trois cent lijjanti na léegi beneen trois cent millions leen koy laaj woykat baa ngi dem rek léegi mais xam nga ne buñ continuer tuuti woykat bu bokk ci ah war na cee mën a bokk ndax preno yi daa bari <laughs> réew mi yëngu na de barki Seydina Muhammad bu yeboo rek ku lekkoon rek goqil ku lekkoon rek goxil te man li ma jaaxal ci Sénégal nit ñi dañuy ragal. Mhm. nit ñi dañuy ragal nit ñi duñu kaas te pourtant lii ñuy kaas ñun suñu xaalis la. Mhm. lii suñu xaalisu réew la ndax nit tey euh, cheikh bi un milliard balaa nga koo liggéey loolu dina mat ay ati ati at mais dangay gis koo xam ne démb marchand ambulant la woon tey ñu xëy na milliardaire la. Sénégal dangay feebar boo amul xaalis dangay dee ñiy sonn gën a sonn ñiy am di gën a am. Mm-hmm. non lii na continuer ku lekk na nga génne. xaalis bi dugaluñ ko fenn fu am xoolal dugaluñ ko fenn fu am importance. caga ji lañ ciy tëdde yóbbu ci xale yi voyage ubbil leen ci bitik jëndal leen ci oto. joomaay na woo ñëpp ku lekk na nga fay. réew mi léegi amatul kumba am ndey amatul kumba ñàkk ndey ñun ñëpp ci réew mi lañ bokk. waa léegi xale yi fii takk jamaa xale yi fii yor ay 4 4 100 xale yi fi yor ay cinquante euh, ay maanaam oto 100 millions xale yooyu cheikh bi lan la ñuy liggéey ba war a mën a yor loolu kaa ñu waxtaan nag ci xel mu sell. Uh-huh. xale yi dem di dal ci ay hôtelu 2000 euros nuit fan lañ ko jëlee kilifa yi ñoom ñoo leen koy fayal xaalis boo liggéeyul. non mais kilifa yi leen koy fayal tam pas ñëpp liggéeyuñ ko am na ñu ko liggéey quand même. Sénégal dëkk corrompu la. am na ay liggéeykat la xam nga Sénégal ñen ñen ñen ñooy liggéeykat yi ay bokkat Samba Dieye gis nga genre pa yooyu ay njuga kepe ñooñu ñoom ñoo liggéey seen alal ay mormati saar grande commerçant yu mag yi mais dama ne xolal ñooy wax dëgg neexul politiciens yu ndaw yi nga fiy gis suba da nga fiy gis koo xamante ne ñu ne la emprunté Ablaye Wade la woon suba nga gis ko mu yor carte nekk milliardaire xaaj bi yépp ay sàcc lañ kenn liggéey ci dañoo sàcc alalu réew mi kenn liggéey ci seex bi te lii nii ma lay wax yow mii toog yaa ma ko gën a xam barki Serigne Saliou ñi nga téye senegal nañ waxante dëgg seex bi senegal nit ñi dañoo sonn nit ñi dañoo sonn jeunesse bi ñoo war a xeex xaalis bi dugaluñ ko fenn fu am importance ay jabar lañ ciy takk di rangale di ci jox xale yi ñuy dem di def chirurgie xale yi di ci ubbi ay boutique waaw kay ku lekk na nga génn lii laa wax ma tëj sama micro ba leneen ñëw. Zeyna Bamba. ok. waaw ngi maa ngi maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah yow nag. maa ngi lay nuyu bu baax tee nga dëkk bi de yow Cheikh bi yow. information yi ngay joxe <laughs> en tout cas comme ni ko ni ko ñu bari waxee rek euh, cas bu compliqué la bu compliqué li ma ci mën a wax daal moom mooy parewul pour sax jeex. parce que mhm. confirmation bu ma lay joxoon rek. waaw ci information yi ngay yi nga joxe tout à l'heure mu ngi fa ba tey. Mhm. mu ngi gendarmerie ba tey yaa ngi wax dig mais nekkul dig gendarmerie la nekk section de recherche. Mhm. fa la nekk ba léegi. beneen mbir mi moom mooy aussi euh, actuellement ci yëf fu mu toll lu ñuy woowee euh, mission secrète lañ ko tuddee. waaw mu mel ne ci bi enquête bi gënee doxal daal euh, wàllu mission secrète la wax ni moom lay def te mission secrète moom comme nuñ ko waxee mission état la warul génn. Mhm. beneen bi aussi moom mooy euh, te na fa ñeenti tur bu dul Macky Sall la kenn ki euh, promoteur la homme d'affaires kenn ki yor na parking automobile kenn ki ancien ministre la donc loolu moo xuusagum actuellement ci enquête bi. Euh, te wax dëgg bu ñu ko continuer nii ñu bari dinañ ci tombe ñu bari dinañ ci daano parce que jeexagul daal jeexagul mu ngi en en enquête ba tey. Mm-hmm. cheikh bi léegi nag man ay question yu ma lay yu ma yu ma lay laajte parce que mbir su amee des fois gëstu dina ci baax ak laaj ci xalaatu xalaatu nit ñi. Mm-hmm. parce que ñu bari dañ jàpp ni ginnaaw coowal Racky Clara Clara Racky yëf yi dafa am coïncidence maanaam la sortie de Racky ak la restation de door a Gueye Oh. ban jàngat nga ciy def yow cheikh bi est-ce que dafa am coïncidence coïncidence la war a yëf yi dafa demoon instruction wala dañ ko convoqué woon bu yàgg parce que d'après bu ñu fuyee information yi mooy plainte bii nga xam ne moom lañ ko plainte ba ñu woo ko waa ji bindoon na plainte bi ci nguur gi bi mu fiy nekk uh-huh. mais euh, amuloon benn suite bi nguur gi wàccee na nguur gu bees ñëw ci la déposé waat plainte bu bees uh-huh. voilà question boobu mooy bu njëkk xam nga biir kër dinga nekk ak jigéen ngeen ànd ci lu bari mu hmm. dem ba li nga nekkee soof ko mu am lu ko metti nga takk ñaareel ñaareel bi du xam li xew ba hmm. aw dere la ba jëppi la ñaareel bi foog ne espace bi nga koy jox ak temps bi moom bajoom moo ko safee wala moo ko mokkee pooj fekk ci erreur la nekk loolu moo dal rakki mu dem ba génn di wane ne man lañu takk loolu dal Clara mu dem ba rus na njaboot ji ak sëy bi mënut a wax mu gàttañlu mais mm-hmm. Clara kontaanul rakki kontaanul mm-hmm. moo kii di fipp di wane ne man la kii di rasu di gëna a mafiow buggul ku associé boppam ak lu ci bari mais nag ci mm-hmm. biir respecté na que kii jëkkëram respecté na am neen doom Mm-hmm. mu noppi téye boppam moo tax miinanti wut benn manka kunka. Mm-hmm. kële dara ci àddina bi moom jàpp na ne dooro boo nekkee moom rek mu lay yóbbu hôtel ngeen di dem pare ka ñëw rek yaa rey gaynde gi lii la jafe woon yomb la looloy àdduna kii nag paase na loolu. Mm-hmm. léegi su lii amee mooy waral situation boobu ngay gis ci kër gi waaye lu taxoon dooro woowuñ ko parce que nguuru Macky Sall te dafa am doole bu fa amoon. doole bi du dara lu mooy jegewante mhm. ñu mën a jël décision mhm. bi loolu amee ba ñu ñëw Doro moo gën a oyof ci ñi ñu ci ñi ñu yor seen dossier te moom moo gënoon a lëjle ndax Doro moo doon kenn nit kuy jëflante dix personnes yu ute mhm. parce que faalewutoon foofu la tolloo moo tax dossier Doro tey am na ci koo xam ne tey boo jëloon dossier ñeent rek a ci fekk bato engrais bi mm. euh, autorisation indi suukar ak diwlin ci dëkk bi da jaarul yoon ñu réglé ko mm-hmm. ak yenn immobilier yoo xam ne niñ toppatoo suuf si leerul am na mm-hmm. tuuti balancissement bu ñu jaaralee ci làmb dañ nga fa fekk loolu am na dossier bu mu ngi war ñëw mu am ah, ci làmb gi lañ ko dugal non dama ne blanchissement bu ah. ñu daganalee làmb mm, d'accord ak autorisation boo xam ne dañ la ko jox pour trois mois nga ci importer ceeb ak diw pendant six mois autorisation bi jeex na yaa ngi indi am na ñooy di la ma kenn waxuma kenn dama ne lii am na ci dëkk bi. Hmm, ok. léegi nag ñii jafewuñ ay dat la ay nangam ak nangam mais da ngay gis ne bu Doro moo gën a lëcc parce que Doro moom bi mu ñëwee rek démb rek dafa commencé tuddutoo ci président Macky Sall la doore la tàmbalee ak ñaar ak ñeenti tur yu mu ci dolliwaat. waaw boole na ci benn mhm. ministre. boole na ci trois prénoms ak ñeenti tur. Mhm. moom mu ngi léegi ñeneen ñi nag seen dossier mën na bañ a feeñ ndax buñ négocier jàppalewaat nguur gu fi nekk dañ leen di bàyyi parce que amuñ problème am ne dafa concerné xaalisu nit nguur gi moo leen ubbiloon bunt ñu mën a am ok. mais Doro daf doon jël ci nit ñi xam nga chèque bi nit a ko bind. un milliard deux cent mille nit moo ko bind. Mhm. mais mhm. ñi leen tappale seen i luuxoor amul dara lu mu def ak nit nguur gi moo ubbi yenn bunt yi pour ñoom. Euh, cheikh bi euh, information bu ñu ma jox léegi mooy waa ji dafa mel ni dafa xaw a sentir seul foofu mu nekk euh, taxaw bi daal dese naa demee noonu ci ñu mu doon dimbali ñu mu doon jàppale ñu mu doon teral. ndax xëy na peut-être am na ab somme boo xamante ne bu ñu ko dajalee ba fay ko rek yëf mën naa sedd ci moom mais dafa xaw sël daal ci jamono ji nga xam ni fa la nekk noonu dafa xaw sël ci ñu mu doon jàppale ñu mu doon dimbali ñu doon suturaal ñoo xamante ni tey mënuñu sax indi par jàppale ko ci. loolu loolu du Doro rek Sénégal moo mel noonu waxoon naa ko ba génnee kaso ma ne yéen ñiy tagg Doro tey fexe leen taxawu ko ëllëg. ndax kaso bi leen ma gis ñi ma fa fekk mu dugal leen fa dina leen fa fekk. Mhm. ba ma génnee kaso laa ko wax ndax ñu nekk kaso dañuy waxtaan. ku ne day wax sa dossier kaso ngay dégg nit na la man maa rey man maa sàcc man maa def nangam su ma interview yi ñu ngi léegi nag bu demee nii. Mhm. sénégalais dañ lay daw pour ñetti mbir. benn ragal mhm. neen ragal neen nga dugal leen ci. ñoom seen bopp. waaw. ñu ne dañoo arrêté dañoo jàpp sëñ Bada. Mm-hmm. jàpp nañu sëñ Bada. sëñ Bada de ma ne ko Bada de amulul. Euh, ah non man yëguma ko de yëguma ko wax dëgg yëguma. Bada bu demee tam mu ngi ñëwaat ndax amulul police ba benn njëriñ. ba léegi lañ ko jàppale sànq mi noonu doon live kon léegi la. ah yëguma ko de. léegi. Mm-hmm. fan laa tolloon. yaa ngi toll woon ci euh, ci ci ci sël gi mu sël daal maanaam ñuy bañ a taxaw ko jamono ji ngir ñetti mbir mhm. benn ñëw soutenir la ñu boole leen ci mhm. ñu bokk ak palaas beneen ba wane seen xaritoog yow ñu xalaat ne ñoom ñu ngi def lu bon benn ba musuñ laa bëgg den la soxla woon mais bëgguñ la d'accord di la soxla bu soxlaan jeexee dootoo ko gis waaye ki la bëgg bu méttee nga koy door a gis Mm-hmm. donc kon ñett yi moo tax. am na ñoo xam ne dañuy génn réew mi di appel di woote lu ñu lay mën a dimbalee mooy yëkkati xaalis jox la wut mm-hmm. avocat jox la mais du ñu teew. léegi nag ñi lekkoon xaalis si dooro bi di ko dooro tey dooro suba dooro guddi dooro bëccëg neen jug na goqi gor xam nga gor guy goqi mooy lan jamono mm-hmm. bi ma lebalee te mënaluma ko suma bopp jamono boobu ngay yëkkati eh, bis bu mënoon mhm. ba nga yëkkati suma doole taxaw ku mel ni aadam taxaw na fii saaga ma net ku laal dooro mu laal la léegi nag laal neen doora na samp laay fam suba ngir doora bëccëg guddi ngoon loolooy wane fidélité ak loyauté ku mel ni mhm. ak ñeneen ak ñeneen ñi doon dooro dooro tey seen pour la pour ñoom ñu génn sàjjal dooro parce que góor-góor rek la mën a doon c'est important donc cheikh bi dossier bi maa ngi topp lu ma ci am lu ma leer dinaa la ko ci waxal naa naa naa la ko ci wax parce que xam nga soo amee posture yoo am rek da ngay lépp looy wax mu mu leer la en tout cas daal mbir yi depuis démb la xew depuis aux environs de 10 heures 30 man 11 heures yëg naa ko bu yàgg 11 heures la gendarmerie malheureusement jotumoon kenn pour vérifier l' déjà maa ci préparé un dossier bu ma a traité euh, demain ndax prête-nom yooyu ñëpp ñi nga xam ne tudd nañ ci dossier bi yor naa seen tur. muy mhm. quatre personnes yooyu ngay wax euh, jox nañu ma seen tur. li xew tey aussi foofu ci gendarmerie ay éléments ñu ngi foo woon aux alentours wax nañu ma lépp ba ci coow la fa bëggoon am au moins euh, dindi ko de justesse parce que ñi fa nekkoon noonu nga xam ne ay xarituwaa ji leen fexe nañ ba téye kenn ki ba ba keneen ki meram wàcceeku xeex nag amu fa moom comme ni ñu waxee xeex moom amu fa waaw mais naroon na fa am nag coow naroon na fa am ndax euh, actuellement moom keneen ki moom mer na bu futt lool sax mer na bu futt lool te keneen ki ñëwoon na ba ca buntu ba ngir seet si donc bugguma bugguma tudd tur xam nga rek damay bañ a tooñ. te xam nga yoon ni réew mi rekki la woon wax réew dañoo te tabaski bi day waaj a jot damaa léegi leneen li ma ciy tegu moom mooy il faut aussi cheikh bi leerlu ba xam góor ñi monogamie dañu signé wala beneen beneen beneen problème dafa am ci yëf yi. Mhm. waa il faut il faut ñu vérifier loolu man man maa ngi koy vérifier yow it jox naa la aval nga vérifier loolu. non non loolu moom vérifier nañ ko bu yàgg dafa signaloon Clara ne ci yow laa yam takk ci takk suuf moo tax rakk yi légalul Clara moo légal. waaw léegi te du man tey loolu man wax naa ko tey sama laay. kon yoon bu ci duggee kon yoon bu ci duggee kon bu ndaw si bu ñu ko merloowee ba mu dem ci yoon tamit nañ def très attention de. non su demee su dee jaral na ko ba mu dem ci yoon. ba ñu valider yoon day def liggéeyam mm. parce que benn jabar leen ko si signal moom kenn rek la. waaw kon ku góor ki day am problème kon. bañ day am problème yokk ci bi mu am nii parce que problème am bii salaamaaleykum la rek des na yeneen a yeneen. yeneen plainte dugg na dégg nga mujjee doon meilleur beneen plainte dugg na. Mhm. dafa dugg wala day war a dugg. waaw beneen na ba pare naa la wax tur bi ci kanam incha allah. waaw baax na. incha allah ci kanam damay dem saal ni sport après maa ngi ñëwaat incha allah. yow li ngay toogee noonu boo sportee foo jëmati Zeyna. <laughs> bàyyi ma sport rek. taay damaa pataa <laughs> te comme dañuy waaj a maa ak yow dañuy waaj a takk. kante sëy bi il faut que may sport daal nekkat ci forme rob bi mën maa sa sëy laa bëgg a sa sëy yi lay seetaan sa gelli ne ci ligne bi laa bëgg a tas dañu waaj a takkante damay dem bi <laughs> ah cheikh bi nga may takk yow it nag eh, koo wax da nga juum ci cheikh ahmed la peut-être cheikh bada ngay euh, bi waaw dem entraînement yow waroo fee yàgg waaw cheikh bi xam nga tey nee naa sama live nee naa mun a gamele signé. Mm-hmm. mais Sénégal neexut a waxe dangay wax kenn du la dégg. Mm-hmm. xam nga ñu ngi naan <clears throat> nee naa leen. Mm-hmm. ki ngeen yaakaar ne dina ñaan baat wala ki ngeen yaakaar ne moo mer sax kooku meru. kan mooy ji non ñun loolu sax amaluñu importance ay ñaareel ñetteel loolu on s'en ah, fout. Ah, ah, xaalisu réew mi nga xam ne dañ koo lekk ñun looloo ñu intéressé wax dëgg yàlla yonent bi. ñu mhm. gën ay ay ñaareel tànta. Mhm. ah mooy maanaam ban ponkol mooy wutal boroom xaalis yi ay jigéen ñu dem ba xale yi neex si ñoom mënuñ ci leen bàyyi mu jaral leen jara takk takk suuf. kooku sër bu mag bi tamit duñ ci wax ponkol mi kii tas yu jàmbur yi. di jël di jël fekk nit kuy say mu jël la jox la borom borom xaalis hmm? génn ak yow génn bu neex mu jaral la takk takk suuf wala mu fexe tas sa sëy journaliste bu mag bi wax leen ci moom borom kër deux cent millions yi yow amoo salaire man daal dëkk Sénégal dana waar waa sëriñ bi yow salaire journaliste war a mën a tabax këru këru deux cent millions dawal ato cinquante million defar sa yaram cinquante million ban journaliste. bu mag bi. moom mooy coxeur gaay yi kan moo leen indil jeeg ji ak jànq jeeg ñu siiw ñi man li laaj mooy sëriñ bi ndax loolu biddiw la léegi borom xaalis lan nga ñu bëgg ñu siiw ñi daal. Ah, waaw xaw ñu dañ ñuy junj tuuti journaliste ngay wax kon message ma ko man ma wax ko. ponkal mi nekk deux heures. moom mooy jox gaay yi. Ah. Hmm. bu bari boobu ngeen yaakaar fu mu koy jëlee coxeur la. yàlla baax na. Hmm. mooy coxeur bu mag bi di moo leen indil gaay di. Hmm. sëñ bi du wax ci kooku. ah da si war a wax nag sëñ bi. même bu nekkee sa xarit dañuy dem rek war a si wax kaa sëñ bi du wax ci kooku kooku day dóori comme góor. dem rek ñu. ah sëñ bi du wax moom xanaa gisoo yaa ngi koy jox ko man maa ko waxal man maa ko sama bopp. man maa waxal sama bopp. borom këru deux cent million yi. fan la jëlee salaire boobu. non non moomu sëñ eh, da kaa topp kaa. kaay ma wax leen yéen Sénégal dama leen di expliquer ñu bëri li ñuy diwoo xeeñoowuñ ko. ñu bëri yow góor la wala jigéen. ñu bëri jigéen la mais li may wax li may wax Sénégalais yi xam nañ ko du soxla dëgg dëgg wér ki nga laay wax. noppil Dakar sa ba Rox waxal ngeen. noppi non c'est que xam nga tey. kii ah, nga noppi. Rox mën naa ñëw. dafa dof moom bopp bi day feebar day wérul. mën naa ñëw pourtant wax na lu am importance des fois kër yi ñuy loué almadi naan leen ñoo ko moom Mhm. loolu c'est pas vrai kooku ngeen di wax moom amul moomul kër gi en location la nekk. man mënumaa lire de yéen ñi man nag mu ngi noonu mais tey loolu noonu euh, moomul kër gi mu ngi nekk en location wala dara Sénégal léegi loolu noonu moom moo fa nekk da ngay am xaalis am ñu lay waxal lu baax am say coogu di leen may xaalis foo jëm ñu daal di mais gis nga loolu amul sens. loolu amul sens nee naa la nguur gi nguuru yàlla rek moom moo dul jeex te gis nga nguuru moom euh, tubaarikàlla joomaay gi ak sonko ay xale lañ te boo leen xoolee nga xam ne faw ñu nee naa la cheikh bi ku lekkoon di nga gox caga ji màkkaro kooba baraa jógeeg wuyu yeeg gajangeer geeg képp ku lekkoon xanaa gisoo léegi xale yi léegi ni ñu loofe réew mi dara doxatul mais Rox Rox Rox Rox xaaral ma ah. moom moom bi de. déedéet barke yonent moom